amuñu ko mbiruñu ko mbaaxam moo tax ñëw fii yërmande ba moo tax ñëw fii père Sagna ngi ni toog papa Mor Diouf ngi toog mu nekk Pastef mbooloo xale Pastef yëpp ci moom la ñuy xool moo tax ñu takk ngeen ñu ngi ñuy dima dégg ñun fi am na diine fonk na waajuram yàlla na ko sëñ dafa nañ ñoom ndax sëb lañ sëb sëb sëb sëñ Souhaïbou moo moo ko julee. Hmm. Ah, donc dañuy am sa donc dañuy am sa Mbàkke. mu sëñ Souhaïbou moo ko julee. kon dafa nañ ñoom yàlla yàlla xaaral jëna. jërë ngeen jëf. yéen it ñu ngi leen di sant bu baax. micro bi naka lay def. waa làmb ñëpp la ñu sant. ndax wax nañ ko ci départ. ñëpp amul dëkk yu bëri teew nañ bëri yëpp fi ñëw teew wax dëgg yàlla. te ñëpp ci ci ne yéen a nga fi ñëwee. ak tey nga méttiitlu li départ bu Moussa wax dëgg yàlla. kon it ñu leen di euh, ñaanal yàlla yéen def leen jàmm. yàlla yàlla bu leen nan leen ko yéex a fay. loolu moo ci am solo. ñu leen ñëpp di leen sant. Père Mor Bey. waaw saa mooy turandoo Modou Lo la wëllëre na ci papa yi Moussa Diouf. Modou Lo yi lii woon na waaw moom moom gis naa ko foofu waaw gis nañu ko waaw. waaw sànq bi dëgg yàlla ñëw na tamit wax dëgg yàlla jot na ma téléphone la ndax moom moom sa ay mars la. waaw ñoo xale ma saa jógee cinq unité dix. ñoom fii ci koñ bi ñu seet moom mu saa ñooy waaw dëgg yàlla wóor na leen te yàgg ba pare di marsam ñu jàngandoo yi màggandoo dëgg yàlla man de loolu nekkee Touba gis naa ko la loolu mu def loolu mu def mooy loolu mu def keroog bi bàyyi bu génnee àdduna. saa noonu la def. dafay jël disponible ñoom fa la toog ñu ne fa ba tëj ba jar naa ngoon bu jot la may fekk ñu ma papa suñu papa kat dafa daal di fa yem. fa la yem guddi ñu ñëw. loolu mu yàgg ni seen diggante yàgg. te ne leen yàlla defal jàmm. saa saa lu tudd yàlla xare ko àjjana yërëm ko ci jéggal ko ni ñuy wax ndax li bàyyi wax rek doy na ndax gërëm na ko ñaanal na ko ñu ngi tëkkatoo yi te ay wëllëre bàyyi ñaanal na ko ñaanal na ko ànd naa ñu ànd bu rafet wax dëgg yàlla jëf fi jëf yu baax loolu la fi mën sa nekk waaw kon ñëpp jàmm jàmm rek laa am saa bu sa quartier bi ñëpp ñëpp ñëpp ko jooy ci ne am na naqari waaw suñu borom wax ndax bu ñuy wax ci Masalik ay qualité moom mu si toog ñëpp xam na làmb ji mu nekkoon saa mu si dégg mu def fa lu mu ko war ba wax fa lu mu ko war loolu wax même boo amee victoire mu am défaite yëpp doon ci moom dara yëpp moom dafa oyof noonu la ko yàlla bind wax dëgg yàlla léegi àdduna waxante lu ñaaw defante lu ñaaw boo lépp ci biir boo amul kàddu ñuy dégg xale yi yan kàddu lañ ma yore sama doom rek laa mun a sama doom moom li ma leen wax rek sant naa ko vraiment wallaahi léegi na ma leen a Cheikh wax mais bu may wax moom ci fu ma xool defu defu moo dara dara dara lu ñaaw waxuma waxu dara lu ñaaw lu mu mos a bëgg mooy bëgg lu mu mos bañ kon nag li ma mën fi nekk man nag ab te te fab bu ne ne tey ma yar la mënu ma loolu li mooy njabooti daal dinaa ci def sama kéem kàttan ndax bu ma bu dinaa tey dinaa yar mu jàmm damay wax loo xam ñu ma dëkkat daal nga xam ne sama njaboot lañu saa bu ñu xëyee dinaa leen wax ne leen def bàyyi leen nii def leen nii waaye nag leneen mënuma cee jóg parce que bu bu ngeen bu bu ngeen ma mayoon sax dinaa leen wax ne leen man xëy na du ma fenn ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas du ma fenn damay wax ne nag ci man ndax man li ma xam mooy liggéey moom ni mu yore doomam message bi muy lancé nit ñi mooy xale daal na góorgóorlu ba mu njëriñ waay. njëriñ mu saam na fexe xa képp xale bu fi toog na fexe am parce que àddina dafa gàtt. mu ne nii ñu ci daje mu ngi liggéey ma la